dégg nga uh-huh. kon mu mel ni fi mu toll nii maanaam buruxlu bi daf ci am ñoo xamante ne amatuñ ci sax kersay nëbb ko en fait dafa flagrant léegi waaw ñoom daal am na ci ñoo xamante ñoom pare nañ ci lépp pour ñëw soutenir régime bi bokk ci ñoom comme bu bu mu la bett mukk ñu ne la ay député de Benno voté nañ loi bi damaa jàpp ne loolu bu ñu ko defee aussi loolu moo ne loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg parce que ñaari kuréel yi ku ne la amal na askan wi njariñ ne ko ana njariñ bi maanaam njariñ bi naka lañ koy natte nattuwaay bi moo amut amut loo xam ne yow dañ lay consulter rek waaye yaa xayti te nga am assemblée nationale am ay commission yu du jeex amut <laughs> ah ah dëgg yàlla tamit ci àll réew mi euh, euh, projet bi nekkul aussi testé voilà euh, taxawaay assemblée nationale jamono ji ñu toll nii ndax jamono ji ñëpp ah, ñu ngi sàkku na nañu ko tas voilà boobaak léegi gisuguñu président jël benn décision mais est-ce que nekkul tey lu ni mel aussi testé ba xam ban taxawaay la ñuy am à l'avenir moo waral lu ni mel. <laughs> non bu dee bu dee lool la ci président jublu de kon moom na ko leer ne day tas assemblée. Hmm. waaw waaw ndax ñii moom am na ci ñooñ wax dëgg jàkkaarloog moom assemblée lañ ne xanaa xamoo li tax ñoom ñu yàkkamti Ousmane Sonko ñëw assemblée du dara lu dul loolu toroxal ko képp lañu bëgg képp du la ah léegi nag euh, damaa jàpp ne fi mu toll nii euh, tas gi moom man yàgg naa la ko wax waaw ah, lu yell la waaw tas gi moom dafa yell nag wax dëgg yàlla parce que nag assemblée boo xamante ne yow amoo fa majoritaire loo fa indi gars yi mën nañ koo bloqué ah. sa premier ministre ñëw ñu mën koo motion ah saa si yaa loolu wóorut. loolu wóorul de <laughs> ah. ah. professeur Sougou projet euh, de dissolution HCCT ak kees euh, jamono juñ toll nii ci assemblée nationale la ko président Bassirou Diomaye Faye yóbbu ndax jàpp nga ni député yi dinañ euh, daal di voté lu nu mel. ah soxna Dia da xew da nga kontaan eh? tey. waaw dama kon dama la gis dama laa namoon. mi lay maa la raw. mu ngi noonu. li ma dem Touba yëpp sama xel mi ci yow la ne. billaay xam naa loolu. woo nga ma ba sonn <laughs> waaw xam nga. tas boobu nag euh, ñu leen war a tas man euh, premièrement damaa jàpp nii dafa nekk loo xam ne dañ ko war a saluer lan moo tax ñu war ko saluer mooy que sénégalais yi est-ce que gis nañu seen bopp ci institution yooyu mm-hmm. yi nga xam ne mooy conseil économique social et environnemental ak HCCT euh, soxna jaara xam nga li soose wax léegi mooy que dafa am yenn institution yoo xam ne ak yenn sax ci ay direction yoo xam ne c'est juste pour caser ñi nga xam ne da nga àndoon ak ñoom politiquement ñu gis ni nag malheureusement dafa nekk ay institutions yoo xam ne c'est budgétivore maanaam dañuy lekk xaalis bi nga xam ne xajoon na feneen ci askan wi wala xajoon na feneen ci réew mi mm-hmm. tey jii nag suñ nee dañ koy tas certes dafa am yoon bi nga xam ne moom la ñu war a jël mooy du décret moo leen faloon dafa am loi yi nga xam dafa jaar assemblée ba nga xam ni taxawal nañ kuréel muy institution yooyu donc pour que président bëgg koo tas il faut mu jaari jiwaat assemblée te assemblée boobu encore une fois dañu doon wax ci tasam. Mhm. léegi nag man je pense que comme ni ko honorable waxee def na analyse bu pertinente mooy dama yaakaar ni benn stratégie bi nga xam ne actuellement nguur gi mu ngi koy dérouler mu nekk benn peut-être euh, euh combat psychologique comme ni ñu koy wax bataille psychologique comme ni ñu koy waxee entre pouvoir bi ak. pouvoir assemblée nationale su ma nee pouvoir assemblée nationale mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo fa majoritaire actuellement Euh, léegi nag bu dee danga pare pour jàllaleen loi bi actuellement assemblée yoo xam nga ni majorité fa est-ce que ñooñu pare nañu pour appliquer loi bi mm-hmm. question boobu la ñuy posé wu léegi nag dafay am benn mbir mooy que man su dee député la ma am noo xam ne taxawee woon naa ko mu leer ma ni lii nii sama avenir mu ngi ci benn côté parce que comme ni ko honorable am na député yoo xam ne dañuy taxaw tem parewuñu pour ñu tas assemblée parce que arrangé wu leen parce que fa la ñuy amee yenn mbir yi assemblée nationale dafa nekk ci ñoom source de revenu léegi nag su dee yow dañoo pare pour jàllale benn mbir man je pense que tey jii li indi problème bi yëpp mooy taxawaay bi nga xam ni député war na koo taxawee mooy identité bi nga xam ni député war na ko am ci biir assemblée nationale taxawaay bi nga xam ni war na koo taxawalee askanam et que ñun ñëpp xam nañ que ni institution yooyu soxna jaara dañ koo defoon rek rek rek rek rek rek pour caser ñi nga xam ne ànd nañ ñoom ñoom politiquement. Mm-hmm. léegi nag est-ce que loi bi dana jàll est-ce que du jàll mooy question bi ma soulevé sànq loi bi bu jàllul président am na prérogative tas assemblée nationale pour fexe organiser ay élections am majorité fexe ultérieurement mu tasi ji institution yi. Mm-hmm. léegi nag yow député nga man je pense que war nga mettre de côté tout ce qui est par parloo. nga xool ban njëriñ la institution yi amal Sénégal bu dee yow am jàpp nga ni institution yi amal na njëriñ Sénégal votel pour ñu bañ koo tas mais bu dee yow jàpp nga ni institution yi nii amulul njëriñ Sénégal da nga war a voter pour ñu tas ko léegi nag nan ngay dem pour am sondage boobu essayons d'interroger la population mm-hmm. amul kenn ku ci sénégalais ci li ma yaakaar bokk wala majorité des la majorité des sénégalais amul kenn ku la ciy wax ni yii di ñaari institutions yi conseil économique social et ak euh, au conseil des collectivités territoriales njëriñ bii amal nañu ko soose wax na ko y a des commissions à l'Assemblée nationale yi nga xam ne ñoom ñu ngi gérer mais au-delà de ces commissions il y a des ministères yi nga xam ne mën nañ jël en yooyu c'est-à-dire dafay mel ni copier-coller dafay mel ni ay doublon wu institution certes mu loo xam ne gis nañ ko benn ci Assemblée nationale yoo xam ne gis nañ ni Euh, ñoom ca la ñuy war a àddu ak ca la ñuy war a doxal am na ay ministères yoo xam ne ñu ngi koy doxal donc ban utilité lañ ñu amal. Hmm. lu dul peut-être jël ay xaalis yi nga xam ne ñu ngi fay dugg ñu leen di voter budget te budget bi xaajoon na feneen pendant ce temps ñu nekk ci benn Sénégal boo xam ne les maux de notre quotidien les maux qui gangrènent notre quotidien son si multiples et énormes que ni mënaguñ koo résoudre ba tey. Hmm. ñu am ay institutions yoo xam ne nag tey jii wax dëgg yàlla amul dara dara dara daal pour man après li muy jëriñ sénégalais ba pare aussi mu nekk ay institutions yi nga xam ni dañoo sës rëq ci président de la république tey jii nii euh, suñu xoolee le président de la république ñi nga xam ni ñoom ñoo topp ci ginnaam ñëpp ànd ñoom moom politiquement muy président de l' assemblée nationale ki nga xam ni moo jiite conseil économique social et ki nga xam ne moo jiite au conseil des collectivités territoriales te tey jii nii bu doon am succession. ñi ne président kan ak kan moo topp ci moom ñoo ñëpp dañuy ñëw te premier ministre du ñëw donc pour man stratégie politique la benn de pour man stratégie économique la stratégie politique ci ñaari wàll comme ni ñu ko waxee munoo wax ñaari institution yi te waxoo assemblée nationale parce que pour tasel ci assemblée ngay jaar te pour nga jaar ci assemblée benn phase test lay doon xool ba xam ces députés là sont appelés à être des députés républicains nga xool tamit yow sa premier ministre bu fa ñëwee ndax dina mën a def déclaration de politique générale de la meilleure des manières. Mm-hmm. donc yooyu yëpp day nekk ay situations yoo xam ne mën nañu ko étudier léegi nag li ñuy wax dañuy xaar di xool ne nañ xool fu wànnante di mu ki bëtam mais am na député yoo xam ne leer na ma ni pare nañu pour nekk des députés républicains ndax lan. pour sàmm seen i intérêt am na ñoo xam nag fii ba ginnaawaati suba fii ba ay élection di amaat. Mhm. du ñu mës a ànd ci li nga xam ne ñii ànd nañ ci. léegi nag après ñoom seen biir ñoom ñooy xool ba xam euh, dina am vraiment ñu épouser euh, projet bi ñu épouser li nga xam ne moom la sénégalais bëgg parce que bu dee député du peuple ma nga xool ni lii nii sénégalais apprécié wuñ ko wala nga def sondage gis ni sénégalais dana naa institution yi gisuñu seen bopp àndal. pour ñu tas ko. d'accord léegi nag c'est am nga fa ay je pense que doo mës ànd pour ñu tas ko. voilà honorable ci sànni